délai boobu weesoo nag ñu door a ñëw ci dossier bi nga xam ni mooy dossier 94 milliards yi il faut que juge bi woo Ousmane Sonko mu wax sénégalais yi 46 milliards yi mu waxoon ban banque la fan lañ ko def ak ban maanaam ñaata lañ dugal ci xaalis il faut que journalistes yi woo Ousmane Sonko mu toog ngeen toog teg jël bi yoon ngeen jël seen micro téye ko seen bopp ngeen ne ko Ousmane dañoo bëgg nga wax ñu 46 milliards yi ban banque la nekk ban at lañ ko dugal ak kan moo ko dugal parce que feni daa buñ paree ci dossier 94 milliards yooyu muy diffamation ñu jëm nag ci Ali Kalaj gi muy dossier François Mancabou ak dossier force spéciale il faut mu leer il faut mu leer nañ parce que nag demande on demande au procureur de la République de diffuser l'intégralité des 13 minutes vidéo yi parce que wax jee ngi bëgg bëri tuuma yee ngi bëgg bëri on a en face de nous une force manipulatrice il faut que procureur dimbali sénégalais yi mu diffuser sénégalais yëpp xam ni François Mancabou dafa xaru mënoon nañ ci bañ wax parce que faatu na dafa am njaboot mais njabootam ñoo continuer di wax ñi farak moom continuer di wax il faut que état bi tamit def dara pour sénégalais yi xam ni c'est à la septième minute vingt six secondes que le François Mancabou arrière dóor boppam ci gris bi mu faatu à la suite de ses blessures il faut que ñu génn ñu dimbali ñu génn ñu vidéo yooyu donc au delà de au delà de xaru gi mu xaru lan moo tax mu xaru il faut ñu xam ko ak ña ñu jàpp ñuy def transfertu xaalis ña jàpp ak ay cocktail molotov ñu jàpp ak ay batraak ñañ jàpp ak ay pistolet factice ñañ jàpp ñu doon waaj a taal Cap des Biches moom Ousmane Sonko bu ko neexee mu tuddee ko neneen moo xam journaliste ñu mu jël bu leen neexee waxuma la ak yéen parce que ay journaliste yu ñu intègre laa ñu jàkkaarloog man journaliste moo wax ñëpp leen xam Sénégal tekkeetuñu dara Sénégal maanaam lépp leen gën Sénégal ils se son reconvertis en des choses convertibles et reconvertibles par Ousmane Sonko à souhait nañu dañu deñe jël ñoom itamit seen jour seen seen seen seen seen i euh, micro ñu dem def investigation lan moo waral ba ñuy jàpp ñu jàpp moor Gueye moor portable am génne Amidia Amidia nekk coordonnatrice Pastef adjointe bu Guédiawaye ñu jàpp mu Mamadou Seck mobilisation Pastef moo ko yor ñu jàpp Pape Ousmane mu bokk Pastef ñu jàpp leen ñi ñu jàpp ñëpp Pastef leen bokk Ousmane Sonko waxuñu la yow la waxuñu la doo yow looy génn naan dañu ma bëgg jiiñ luñ la jiiñ dara ba léegi procureur génnul jiiñ la dara ba léegi ana xanaa man man maa ko jiiñ et en direct ne ne ne ne ne c'est lui qui est derrière tout ça et il le sait Ousmane Sonko il le sait et j'aimerais attirer l'attention de la presse que ni j'ai longtemps dit que ni la suite par rapport ak César Atoute Badiate par rapport ak Ousmane Kabiline jaata par rapport ak Mapol jaata par rapport ak Cyprien Laurent Mancabou par rapport ak lu euh, euh, mu tudd sax François Mancabou ce n'est que la suite de la tuerie de la Pointe Saint-Georges en 1992 ay wax day leer ce n'est que la suite du GIE Tabar ay wax day leer qui a eu son récépissé en 95 et qui a été à l'origine génnu génnu Khalifa Sall ci biir mairie Dakar j'ai posé une question aux journalistes j'ai donné une piste aux journalistes ki newoon ki tëjoon ci biroom document yooyu daaneel Khalifa Sall nu mu sant ak nu mu tudd il s'appelle Yaya dem leen journal ngeen gëstu maamu Ousmane Sonko bi ko yar daan faj rebelle yi nu mu nu mu tudd ak nu mu sant ngeen xool ban rapport la maire Bodian am ak Yaya Bodian ngeen xool GIE Tabar bi papay Ousmane Sonko créé en 1991 lorsque Marcel Bassène a été investi de mission pour gérer la gestion de la paix en Casamance lan moo waral loolu fan la jógee ak fan la bàyyi ko xam César Atoute xam na ko Kabiline xam na ko Atepa it xam na ko j'ai posé une question claire et nette à Atepa Goudiaby qu'il nous dise en Casamance kan moo doon financé rebelle di leen jox ay moto Atepa dañu ko wax lan moo tax en 2019 ba projet Pastef na lay yàqu mu daw en au secours jox Ousmane Sonko siège jox ko xaalis ñu ànd ba léegi lan moo tax ba parlementaire Ousmane Sonko jeexee lan moo waral Atepa Goudiaby bi daw ñëwaat encore ànd ak président Macky Sall pour sauver son fils adoptif wala son fils xawma nan pour génne ko des tripes de la justice chers journalistes voilà des pistes très intéressantes pour comprendre pourquoi maintenant les couleurs de Pastef sont les mêmes que les couleurs du MFDC pourquoi l'essamay chez le chez le MFDC est le même essamay dans le pays de Pastef pourquoi Ousmane Sonko est responsable de tout cela c'est des investigations à faire donc ñun loolu mooy suñu combat